Jules Kéba Mbaye mu ngi gane àdduna juróomi fan ci weeru août atum 1924 ca Kaolack doore jàngam ca école normale William Ponty bu Sébikotane mujj fa doon ab jàngalekat Lata loolu mu wéyal jàngam ca faculté de droit bu université bu ndakaaru école nationale de la France d'outre-mer Nek ca Paris doon fa jàng lii di wàllu yoon di waajur ci Abdoul Mbaye nekkoon fii njiitu bi ak di Cheikh Tidiane directeur général bu Sonatel Lol, lool lii tennis ak golf ci loolee mu comité international bu olympique ci atum 1973 ba atum 2002 Nek itam vice président Boussio 1988 1992 1998 2002 Moubok, bokk commission exécutive ci atum 1984 ba atum 1988 ci Juan Antonio Samaranch mu amal Kourelbi, bi tribunal arbitrage du sport Temunekon, mu nekkoon 1988 1992 Ligayam Foslol lool ci de Afrique du Sud ca commission apartheid pride ak olympisme jusqu'à Bambay, nekkoon nit deug gëmoon lol bopam khatim ay téere yu bari li ci les droits de l'homme en Afrique l'intérêt pour agir devant la cour tribunal de justice l'arbitrage d'une démocratie en Afrique propos de juge ak ak yeneen i ñeneen ci réewam mu nekk njiitu cour suprême bu Sénégal lu toll ci fukk ak juróomi ñaari at njiitu conseil constitutionnel bu Sénégal 1990 ba 1993 nekk itam vice-président bu cour International de justice de la Haye ci atum 1983 ba 1991 Jusqu'à bambey Mbaye bokkoon na ci juróom nit yu seen xel màcc lool yoroon l'enquête bu 1992 ci jéeya yu Yougoslavie amaloon ca conseil bu sécurité des nations unies doomu Kaolack bi nekkoon ab royukaay ci wàllum yoon jàngal ñu bari taalibe Serigne Cheikh boobu mu ngi génn àdduna fukki fan ak benn ci weeru janvier ci atum 2007 fii ci Ndakaaru kooku mooy le juge Keba Mbaye suñu juge national yal na ko yàlla yërëm te xare ko aljana allahuma amin